What's up? What's up, my people? first two people, assalamu alaikum. ñaan ñi njëkk a dugg na def ñeent juróom-benn muy demee dafa juróom-ñett asalaamaaleykum <laughs> na ngeen def sama gars yi ngi ci jàmm yéen ngi ci jàmm de ah. nekk leen ci jàmm rek zéro heure ah <laughs> zéro heure zéro heure rendez campagne électorale bu Sénégal zéro heure fépp fu waay nekk soxlawul soxlawul wax ju bari soxlawul bruit mais il naa ne tey lañ joxante woon rendez-vous de ne tey bi su tey bii ci la campagne électorale bu Sénégal di démarrer kon gor ca wax ja xam nga ba pare nit ku nekk maanaam say waxi démb daa war a méngoog say waxi tey ah <laughs> moom ndox du bàyyi yoonam man boog man duma bàyyi sama yoon man ilaa yow mi diini je resterai Assane du ma mës bàyyi sama yoon saa su ne Assane Diouf lay nekk ku mu neex ak ku naqari Assane Diouf lay nekk mais dama leen di digal yéen ñi jot a dugg ku ci nekk rek partagel partagé moom mooy séddale maanaam buñ ko tàmmalee suñu bopp yu mel nii ak li fi am tey duñu dal maanaam séddale ak séddoo ak dégloo ak dégloonte xam nga yu mel nii duñu dal xam nga moo tax séddale rek partagé leen vidéo bi partagé leen vidéo bi partagé leen vidéo bi képp ku dugg rek demal partage nga partage demal partage nga partagé bu ko defee xam nga information bi jàll xam nga ñu xamal sénégalais yi xam nga li ñu war a xam rek comme ni ñu ko daan defee xam naa ne <clears throat> ñu ngi toll ci jamono boo xamante ni tout est manipulé lépp lépp lépp nag bu leen bàyyi dara tout est manipulé xam nga tout est manipulé électronique TikTok Facebook Instagram tout tout est manipulé par le gouvernement de monsieur Macky Sall ok ci digg bi Macky Sall parce que ñun senegal ñëpp xam nañu xam nañu jot nañoo xam jot nañoo xam mais man damay woote. damay woote tey damay woote man dama déclencher campagne électorale boo yeboo nag Macky Sall jàpp datu élection moo xam moo xam deux mille vingt six moo xam deux mille vingt cinq moo xam deux mille cinquante xam nga mais xoolal période boobu yëpp nañ ko campagne parce que duñ fa egg waxin la duñ fa egg li tax duñ fa egg mooy fulla mooy jaay Dakar fulla te ñun dafa am lu ñu dal dafa am lu ñu dal lu ma bett ci senegal dafa am lu ñu dal loo xam ne bett na ma ci senegal Sénégal gi ñu doon wax les lions les lions ba pare tegal ñu ci les lions de teranga maanaam gaynde gi teralaate gaynde gi teralaate amoon naa yaakaar ne war na mën a nekk gaynde guy teral boppam gaynde gu war a mën a teral boppam partager leen vidéo bi rek ñu waxtaan waxtaan bu gàtt bu am importance ci fi ñu jëmale suñu réew parce que man dama nekk ci période campagne xam nga dama nekk ci période campagne te dam déclenché naa sama campagne ba keroog xolal ñu naan bisu élection bi lii la te am naa yaakaar ne bu sénégalais yi amee fulla matal matal seen yoon wallahi Macky Sall dina dellu siwaat waxaat ak sénégalais yi xam nga ñu tëgg suñuy élection ci niñ ko war a tëggee man dama génn pour dellusi ci ay kàddu Macky Sall je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression fàttali ki ngeen wax boobu ah. maanaam liggéey boobu mission boobu moom la Macky Sall di dox ba léegi te sama génn bu mujj bi jotoon naa waxtaan ak yéen ne leen surprise yu baree ngi ñëw Sénégal doy na waar fi mu toll nii doy na waar trop parce que bis bu nekk yéen a ngi xëy di jàkkaarlook ay nit xam nga li ma la ñuy taxaw di leen wax ñun lii lañu gëm Macky Sall nangam Macky Sall xam nga tey am na ci ñoo xamante ni Macky Sall moo leen gën maanaam ay sagaru Macky Sall sax moo leen gën parce que li ñuy wax ci kaw ak la ñuy wax ci suuf du doon benn. moo tax xoolaat leen seen bopp yàgg naa leen ko wax dégloonte dégloonte dégloonte leen xeex bi bi muy déclenché man bi ma koy déclenché séentuwuma woon lenn lu dul jàmm Sénégal te ba tey jii séentuwuma lenn lu dul jàmm Sénégal moo tax jour bi Macky sàll génnee def déclaration ne du am troisième mandat mais mu am ay ndëgg sërëx ci biir maanaam discours bi awma pour def troisième mandat mais am naa droit wala constitution nangam ak nangam bi yenn opposant yi génnee di ko félicité naan ñi ngi koy remercier dama leen wax ne tant que Macky Sall demuñu ba le 3 avril 2024 mu takk valisam génn pale bi bu ko kenn remercier man loolu laa leen waxoon wax jooju daf ko naqari ba ci biir pale ba barki yonante bi moo tax maa ngi def maa ngi wax defe naa le 3 avril xam nga après discours am xam nga le 4 le 5 le 6 ñu fekk ma ci garage bi gàdduma ma yóbbu di ma wax lu tax ngay wax Macky sàll lii lu tax ngay wax say kàcc nangam nangam indi boo xamante ni ay at la ci ginnaaw xam nga li ma wax pour jéem a taqale non loolu yëpp naqar bu ko topp ci commentaire yi Assane Diouf commenté parce que ñëpp a génn kontaan célébré xam nga li ay jeunes naan yee Macky Sall xam nga nee na du am troisième mandat ma ne leen tant que tant Sall dem leen ci vidéo ba demuñu ba le 3 fév 3 avril 3 avril 2024 mu def passation de service ñu gunge ko mu génn palais bi wallahi lu mu leen wax bu leen ko gëm parce que man duma yàlla du ma yonent bi duma ma seydinaa du keneen mais yàlla may na ma ma mën a déglu nit xam lii dëgg ci li muy wax yàlla may na ma tamit ma mën a xool nit ki xam ne kii nitu dëgg la walla lan la yàlla may na ma tamit ma mën a ma mën a ma mën a ma mën a am ma mën a am maanaam vision xolal ne lii buñ ko toppee nii la war a demee loolu yàlla def ko te loolu moom la ñuy dund tey mooy chaque jour Assane Diouf dina génn wax ñu ne dof bi mi ngi wax amul problème mais la may wax après dañu naan grand bi waxoon na ko te samay doom dina ñëw ne paa bi waxoon na ko samay sët dina ñëw ne suñu maam waxoon na ko li am tey man bertuma de billaahi wallaahi wa taalaahi barke Seydina Muhammad man bettu ma parce que nit koo xamante ni maanaam musoo koo wóolu ci dara ci dara kooku munu laa wax dara looy gëm te man musu man Macky duma ko gëm ci dara jour bi may gëm Macky Sall mooy jour bi mu faatoo bis bi muy faatu xolal ñu jullee ko lëmas ko ci perkaal bu weex suuli ko ak fu ñu ko mënti suuli Fatick wala fu mu mënti doon jour boobu ci lay gëm Macky Sall man ana waa Benno ana waa APR ñaata démission lan moo tax ngeen démissionné ñenn ñi ñi ngi toog ci seen bureau yi di xoroma te bi Assane di xorom dañ ko tudde woon l'insulteur public ñenn ñi ñi ngi toog ci seen bureau yi di mer te bi Assane di mer di génn di wax ak yéen dañ ko tuddee l'insulteur public ku ñàkk teggin ku yaree di ko kii respecté wuñu fekk boobu yàlla dimbali na ma man ma jàkkaarloog nit koo xamante ni wóor na ma wóor yàlla ne wallahi 2016 2015 2016 Macky Sall di toog di wax ak sénégalais yi ma di ko xool Macky Sall di wax ak sénégalais yi ma di ko xool di mer nekk Nouvelle-Orléans xoolal di mer ba sama jawaat di ma wax ne ma why you don't just put your camera on and speak up lu tax mënoo taal sa caméra nga wax li nga bëgg a wax Sénégal ba léegi ba léegi xamuleen fu ngeen jëm ba léegi nii ba fii ñu toll nii nii nii nii may wax ak yéen wallaahi xamuleen fu ngeen jëm partage leen vidéo bi ma wax leen lu dul deñ Sénégal je vais réduire l'opposition à sa simple plus expression je vais réduire l'opposition à sa simple plus expression Macky Sall moo ko waxoon Macky Sall moo ko wax sénégalais yi ñu di ko dégg Macky Sall nekk ci loolu di ko liggéey di ko liggéey nag di ko liggéey commencé ko ci Karim Meïssa Wade wàcc ci xalifa Ababacar Sall ñëw ci Assane Diouf topp activiste yu ndaw ndawaan yi ay Abdou Karim Gueye ay Guy Marius Sagna ñëw ci usmaan Sonko taxul ngeen déglu toujours bës bi bës bi maanaam fi coow li féete rek mais fi dëgg gi féete fi nga xamante ni ñun fa la ñu war a jafandu pour dëggal li nga xamante ni moom mooy li war a am non duñ ko def ilaa yow mi diini dañuy campagne par force dañuy am ndam par force Macky Sall dinañu abal Sénégal par force su ma leen ko waxee rek booye boo ngeen gëm ko gis nga liinii pexe yu yàgg la liggéey bu yàgg la lu mu yàgg a préparé la ànd koog ay mag yoo xamante ni maanaam yéen maanaam bàyyiwuleen leen xel sax ay mag nag ay kilifa yu nekk ci réew mi yoo xamante ni maanaam ñun dañ leen a jox importance boo xamante ni amuñu ko ba pare ñuy dëpp di jiiñ yeneen doomu aadama yoo xamante ni maanaam buñ buñ demee sax ba xeexu opposition bi des des tuuti sax ñooñu ñoo ko xeex te ba tey jii ñu ngi leen di ñàkkal fayda je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression te gis ngeen ko tey tey gis ngeen ko tey waruloon am tey dafa am sénégalais recalé ah ak sénégalais candidat ak sénégalais séparé séparé yéen opposition bi laay waxal moomu leen ndeyu sénégalais yi moomu leen ndeyu sénégalais que bu ngeen respecté woon sénégalais yi fii amul candidat bu jàll amul candidat bu jàllul bi Macky Sall waxee li muy wax même bu ngeen doon daje yéen ñëpp ci mbedd mi ñu leen di takk benn par benn di leen yóbbu kaso da ngeen ko waroon def mais tegu ñu leen fi pour ay conférence de presse te sénégalais yi laay waxal bu leen mës a dénk Sénégal ay nit yoo xamante ni tëju ci saal rek conférence de presse tëju ci salle rek conférence de presse noonu ngeen defoon ci Macky sàll ba mu ñëw di leen noot parce que respecté wuñu leen 2012 bi nit ñi nekk ci mbedd mi di xeex ñiy dee dee ci ay ñoom du Diop Macky sàll boobu xolal dernière minute ba nit ñëpp taxaw ci lay ñëw balaa nit ñee wëlbatiku mu yolleekuwaat dem yoonam moo tax respecté wu sàll Macky Sall 2012 première ñëwam Amérique fekk ma Amérique man 2012 lu nit ñàkk ñàkk xam-xam lu nit ñàkk respecté sa askan jabaram Marème fay Sall benn femme bu ñuy wax Aïssa Cissé di liggéeyal CNN di def ak moom interview ne ko est-ce que mës nga xalaat ne yow sa jëkkër dina mës a nekk président bu Sénégal ndaw si def ne ko déedéet te moom moo daan ànd ak jëkkëram di dem ne day wuti Sénégal dafa bëgg jëkkëram nekk président jëkkëram di wut Sénégal xanaa loo ñàkk-ñàkk xam-xam di nga ne waaw waaw ñun ñoo demoon dem wuti ko ci baat ci sénégalais yi ñun ñoo dem campagne moo tax sénégalais yi fal ñu mais def na ko musuma yaakaar ne sama jëkkër dina nekk président bu Sénégal loolu mooy manque de respect bi nekk ci jabaram nekk ci moom Macky Sall ñu di ko dund ba tey ji waaye nag tey maanaam affaire yi dafa soppeeku jamono dafa changé ñu am ay politiciens yu bees am ay waxkat yu bees am Facebook am TikTok xam nga ay nit yoo xamante ni xamuñu sax histoire u 2012 xamuñu sax lu li xewoon euh, en en 2017 xamuñu sax lu xew 2017. xamuñu fan la politique Sénégal nekkoon en 2019 ñoom ñoo ñëw dugg ci internet bi xam nga jàkkaarloog sénégalais yi. xam nga li ma wax ku nekk am sa xalaat ku nekk toog ñi nekk ay diaspora bu ñu yeewoo ñu ñi nekk Sénégal di fi yeewoo xam li fi xew dëkkandoog Macky Sall dëkkandoog njabootam léppam bu ñu xëyee ñoo ñu toog naan ñu yee xam nga li ma la information ay duulkat yoo xamante ni lu ñu wax ay fen la ñu bàyyi leen xel ba egsi fii ñu egsi tey lépp lu ñuy préparer lépp lu ñuy teg lépp lu ñuy def loo xamante ni dañu ne lii moo ñuy jëmale kanam ñoom ñu toog rek yee am naa information yee di xolal waa ji di defaru di defaru di defaru di defaru ba jekku leen di defaru ba jàpp suñu frère xam nga li ma la Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi ngeen toog naan yee dañ na us namm nañ la Seydina Ousmane maanaam dem ba ñun xamatuñu xamatuñu xamatuñu xamatuñu ñun ñooy ñan ci ay manipulation ay nit yoo xamante ni tey koo ci jox Sénégal koo ci jox Sénégal mu toroxal la ñenn ñi fi toll nii ñi ngi tëju di tàccu ñenn ñi caaya sax lañu sol guddik tey xoolal di di di di bàyyi ili da koy tere caaya la sol di bàyyi ili da koy tere ci seen biir saal yi kontaan ci coup d'état institutionnel coup d'état lii moo gën a garaaw sax xolal maanaam fekk président ci pale dóor ko balu fetal xolal nangu nguur lii moo ko gën a garaaw parce que ki ko def daf ko def ba pare jàkkaarloog yéen nag xolal yor soccam xam nga naan ndoxam bu sedd toog daal di ne yee tout va bien te mu yàgg ko préparer je vais réduire l'opposition à sa simple plus expression <laughs> Sénégal Assane Diouf insulteur public Ousmane Sonko du nitu jàmm Khalifa Ababacar Sall tekkiwul dara ñu ne xam nga un traître la Barthélemy Diaz traître la ah ñeneen ñi di mbubboo turu Ousmane Sonko bu ngeen gisee xeex bi xeex bi man fan yu mujj yi kenn dégguma ci parce que man xeex laa xam man xaw ma bës xaw ma def li may def ba pare taxaw yor sama caméra di kii non non non man xeex laa xam barke muhammadu rasulullahi xoolal li fi xew ci Assane Diouf yëpp mën naa leen a wax ne xoolal diggante bi sama yaay gaañoo diggante bi sama yaay gaañoo mois de juin am na ay vidéo ay affaire yu bari yu amoon 2017 ci sama tur man wallahi at mi laa koy doog a gis parce que lépp lu ma mësaan def day dem naturellement dama koy romb naturellement parce que dama doon am yëg-yëg bi sénégalais yi am ci métit sénégal fii traître amu fi fii ah benn traître benn traître benn traître benn dictateur benn nit bu tekkiwul dara buy bundu xatal sénégalais yi respecté wu leen moo fi am mi ngi tudd Macky Sall Macky Sall yéen ñëpp xam ngeen ko muy wax ngeen di jàllale muy wax ngeeni ñàkkal fayda je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression baat boobu rekk topp leen topp leen ko ba mu ko waxee ba tey lan la ci jéggi lan la ci jéggi romb ci dara romb ci dara romb ci benn minute chaque jour mooy liggéeyam chaque jour mooy liggéeyam man nga defe ne toog man d'accord xam nga ñu war a wooyee benn Barthélemy Diaz traître traître ci koo xamante ni xoolal Jean Paul Diaz mooy baayam d'accord mën na nekk ci pouvoir mais amul jàkkaarloo bu mu jàkkaarloowul ak Macky Sall xamali ma la dem fi kaso ñu koy toroxal ba tey jii xalifa Sall nga defe ne dinaa taxaw jàkkaarloog man ay nit ñuy woowe xalifa Sall traître ma di ko gëm koo xamante ni man dama nekk ak moom dama dëkk ak moom ah, dama dëkk ak dëkk bi gën a metti maanaam 15 mois ñu dëkk ko prison muy wax may wax ñuy jokkalante ma xam lan moo nekk ci moom kii lan la bëgg ak lan mooy jikkoom ak lan moo ko indi fii. te li tax ñu koy woowee traître moom moo taxaw formé ko maanaam moom moo taxaw taxawal yeewi askan bi taxawal ko ci ay sart man ma njëkk fa nag maa fa njëkk man maa njëkk ci saalu xalifa sall bi photo yaa ngi fi lépp a ngi fi maa njëkk ci saalam ba mu jox ma ay conseil yedd ma ne ma Assane sa doxin la lu bari lu changé ci man tey xalifa sall la cent pour cent sénégalais cent pour cent sénégalais la wax kooku taxawal yeewi askan bi ñu àndandoo ñun ñëpp def benn combat dem ñaari élection gañe ko te lañu ñu woon avant ñuy taxawal yeewi askan bi mu taxaw ne bis bu ñu demee ba egg ci bis sàngam na ku nekk dem bayali sa baay ñu ne traître la kon tey waa PDS ay traître la ña ah. parce que ñoom tamit dañoo dem bayeli seen baay ñu war di dégloonte dañu war di protéger sénégalais bu nekk di protéger moromu sénégalais am bu nekk nga xëy rek taxaw ne sama moromu sénégalais bii du ma bàyyi kenn di ko noot bu ñu ko defee ah Sénégal gi ñu soxla ah wallahi billahi dañ koy am bu ñu ko deful xoolal chaque jour bu ñu yeewoo dañuy gën a dellu ginnaaw wax naa ko bu dul benn du ñaar taxaw naa fu ne mois de mars deux mille vingt et mois de mars deux mille vingt et man Assane Diouf xeex bi buntu kër usmaan Sonko maa fa njëkk barke Mouhamed maa fa njëkk ñu bari bi ñu ñëwee gis ma sax surprise la mooy sama première fois gisanteeg Ousmane Sonko te boobu ànduma ak Ousmane Sonko mais d'accorduma woon pour ñu noot Ousmane Sonko wala ñu koy toroxal parce que baat bi nga xamante ni maanaam dictateur bi wax na ko je vais redire l'opposition à sa simple plus expression tu mës a génn sama bopp. yow fu ma la fekk rayla nit bu ko dugalee ci sama nopp xoolal nit kooku du ma ko may fenn fu ñuy daje te préparé lu ko te loolu la wax Macky waxoon opposition bu Sénégal fu ma leen fekk rey leen senegal senegal je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression <laughs> waa ji nekk ci ba tey ji ba tey ba tey mu def échec bi gën a mag ci histoire politique am balaa maa dee nag bu journaliste si xëyee maanaam ñi nga xamante ni ay journée xasuma leen naa ah. dama wax dëgg rek journée lire répéter non recherche noo gëstu noo lenn bu ñu demee ba nekk ci dëkk boo xamante ni Cheikh Yérim Seck moom la ñuy woowee journaliste bu mag di ko woowee écrivain boobu dëkk torox na bu ñu demee ba nekk ci dëkk boo xamante ni ah Madiambal Diagne moom la ñuy woowee journaliste bu mag di ko woowee écrivain muy bind ay livre boobu dëkk torox na bu ñu demee ba dëkk boobu ah ñuy dàqa fen ci histoire dëkk ba ñoom la ñu jël xolal bu ñu amee comme ni ko Cheikh Baara Ndiaye waxee bu ñu amee mbub mu bees leneen yu bees ñëw toog ci plateau yi di fen après ñëpp toog nag jox leen audience di leen déglu boobu dëkk torox na. man ma dem ba mu yàgg ma ne noo est-ce jarati na wax est-ce que na ko est-ce que jar na di génn sax di toog. di wax réveillez-vous xeex bi du xeexu conférence de presse de du xeexu ku nekk ñaa candidat recalé candidat en en mais yéen fan ngeen nekk fan ngeen nekk jubbantiwaat leen seen bopp jubbanti seen xel yi ñu àndandoo nekk senegal gu dëgër barki sëñ Bamba bu ngeen ko deful xoolal ñi saboote ñii di wax ay jeunes yoo xamante ni xamuñu histoire u 2012 ah xamuñu dara ci lu xewoon 2012 xamuñu dara ci li xewoon 2019 dara xamuñu ko ci riir bi di dem rek ñu topp ci ba ñàkk espoir ñàkk seen leader parce que riir bi lañ topp rek topp ñu xeex bi topp ñu xeex bi de mais riir bi ak bës bi bu ñu toppoon xeex bi <laughs> waa ji egg ak ñun fii delloo si waat leen seen xel yi retourné waat leen ngeen xam ne Sénégal man man man xoolal sama buntu kër gi laa wax man sama campagne sama buntu kër lay commencé wax ak nit ñi sama buntu kër lay commencé sama jikko sama buntu kër lay sama biir kër lay commencé jéggi ci buntu bi dem ci bopp koñ bi dem sama jikko ku mu neex jëlal ku mu neex bul jël mais xoolal dañuy ànd ci dëgg ànduñu ci dëgg xoolal ku nekk rek jëlal benn angle man nool loolu laa xam Amérique laa nekkoon Amérique United States of America dëkk bi ëpp première puissance mondial nga xam ne loi moo foy dox dëkk buñ la wax ne président ba xoolal yóbbu nañ ko justice justice condamné na ko demaat na justice justice condamné candidat la waaye nag xoolal nangam xoolal parce que dafa am ay loi dafa am ay loi loi dañ koy topp ba mu jeex ay procédure la mais fii loolu amu fi gars yi ñoo ngi ci campagne électorale dañ ñoo gën a yokkal dele bi nag dañ ñoo gën a yokkal délai wu campagne bi dañ ñu ko gën a yokkal parce que ki ñuy jëflanteel bis bu nekk bu xëyee wane boppam sénégalais yi di gën a xam li Assane Diouf doon wax ak li Ousmane Sonko doon wax ak li basiru joomaay doon wax liñ doon wax yépp tey yàlla di ko gën di dëggal ba pare di ñu gën a jox dele pour ñu gën ko xamal sénégalais yi te ñu bàyyi yàq der bi fii am na ñoo xamante ni ñu ngi toog ci caméra yi wallahi wallahi li tax dematuma man li tax dematuma ci yenn ndaje yi ah? am na ñoo xamante ni barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek mooy waat ñi ngi dem ci taatu caméra yi ñi ngi dem ci conférence de presse yi ñi ngi dem ci réunion yi di mbubbo Ousmane Sonko naan yee Sonko nangam wallahi bugguñu ko buggu bu ñu sañoon bu ñu sañoon laala la wax xoolal suba ñu tàggaleen Ousmane Sonko mais xam nañ ne benn pouvoir moo fi nekk benn opposition bu dëgër moo fi nekk xoolal te boobu opposition yàlla moo fa jiital turam ñu ne nañ dem wéeru ci mais gëmuñu ko moo tax ñi assumé nga xam ne Sonko dalee na fekk ci yoon bi bi muy ñëw ci politique dafa fekk Barthélemy Dias ci yoon bi bi muy ñëw ci politique dafa fekk xalifa sàll ci yoon bi bi muy ñëw ci politique dafa fekk Karim Wade ci yoon bi bi muy ñëw ci politique dafa fekk ay mag ay kilifa ay jeunes yoo xamante ni moom sax moo leen mag ñu njëkk ko ci politique yàlla may ko ci lu mu may lu mayul ñu ñëpp ñëpp ko d'accord ñu ànd ceeg moom nag ñun ñu yor xol yu sell te duñu feek man duma feek mukk sama ànd ak doomu aadama Réveillez-vous. Réveillez-vous. fan yële paase génn naa fi wax leen ne leen surprise yu baree ngi ñëw surprise yu bari fii vingt candidats yooyu xoolal la ma leen waxoon ba léegi la ma leen waxoon ba léegi mooy li nekk billahi wallahi wa taalaahi ñeenti candidat ñoo ciy candidat yoo xamante ni boo leen joxee Sénégal ci vingt yi ñeenti kandidaa yoo xamante ni boo leen joxee Sénégal ñu joyanti ko teg ko ci yoon ñu ci des ñëpp dañu foo ñëpp a foo ñëpp campagne bi déclenché na man bugguma fee yàgg mais Sénégal dina am jàmm te jàmm jooju ñun ñoo koy liggéey campagne bi xolal dañ ñoo yokkal délai bi rek dañ ñoo yokkal délai bi mais yéen opposition bi yéen opposition bi laay waxal moomu leen ndeyu sénégalais yi yéen opposition bi bàyyiwuma kenn nag tant que munu leen a booloo yéen booloo toog même bu ngeen koy defee maanaam ci bayal wala estat ngeen toog amul kale amul recalé amul ku jàll ak ku jàllul ñëpp toog opposition bu Sénégal billahi wallahi du ngeen mës a am ndam ci Macky Sall te ki ko commencé woon nga xam ne moom laa tuddee à part Ablaye Wade à part Ablaye Wade moom laa tuddee fii génie politique muy xalifa Ababacar Sall mu taxawal yeewi askan bi ba mu may ñu lii ñu am yépp tey ñu di ko woowee traître tant que joyanti loolu jubbantiwaat yoon bi xoolal yenn opposition bi barke Serigne Touba Mbacké du ngeen am ndam parce que affaire yi du affaire wut tur wala wut bës wala wut foo jafandu wala diw mooy diw non non non génn nañu foofu dañu génn ci àdduna boobu Sénégal bugguma fee yàgg campagne bi déclenché na yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla na yàlla feeñal workat yépp ñuy gën di feeñ workatu géejawaay yeeg workatu pikin yeeg workatu ndakaaru yeeg ñépp danañ gën a feeñ campagne bi déclenché na duñu bàyyi lama leen waxoon keroog laa leen di wax duñu bàyyi benn doomeram benn nag buy continuer di dox ci kaw sénégalais du am wut pouvoir dem bàyyi ñu après nekk ci li la neex ñun ñi àndoon ak yow ba jox la pouvoir bu ñuy wax ak yow doo déglu comme Macky Sall di ñu won ne je m'en loolu day jeex Sénégal te ñun ñoo koy jeexal man ànduma kenn ku dul Sénégal ànduma kenn ku dul Sénégal fan yii rek coow li bari na ci meeru Géejawaay dootuma tudd turam te bugguma kenn kuy ànd ak moom di ñëw sama kër di am ay explication parce que ba muy ñëw ci man di wax pour ma dimbali ko moom meeru Géejawaay àndul ak kenn pour wax pour ma dimbali ko moo doon ñëwal boppam mayuma kenn muy ñëw sama kër naan ma sa digganteeg Ahmed nangam ak nangam sa digganteeg Paate nangam ak nangam sa digganteeg Demba nangam ak nangam mayuma ko kenn bu kenn ñëwati sama kër ku ci am looy wax dama nga def comme assan Diouf taalal sa caméra nga wax li nga bëgg a wax parce que man xaritoowuma kenn ah. ànduma kenn pour intérêt soxlawuma daray mairie mais damay défendre sama gox avantage yëpp mooy sama population bi ma dëkkal ñu am jàmm ñu toppatoo leen ci jàmm liñ leen dig ñu def loo ko xoolal tànka defu leen ko jàmm du ngeen ko am ci Assane Diouf ñëpp laa ci yemale nag président ak maire ak gouverneur ak député ak ñëpp laa ci yemale ndeyam faale ma ci kenn toppatoo leen sénégalais yi Assane Diouf nekk ci seen yoon toppatoowu leen sénégalais yi chaque jour da ngeen di am problème ak Assane Diouf loolu moom garanti soxlawuma kenn di ñëw sama kër di ma wax lu jëm ci ay Ahmed ay daraak ay kummanti doon dégg naa ñu naan non li a wax waxu ko nangam man dama ne fii Sénégal tànn fi président président boobu du jóge géejawaay parce que géejawaay parewul pour am président ay nit yu dëggu yu garanti yu mën a taxaw pour seen njaboot commencé ko seen buntu kër yi ci seen mbokk yi seen ndey yeeg seen baay seen nitu démb yi ñooñu ñooy jiite am réew mais doo romb yow ñi nga war a dimbali cent pour cent dimbali leen ba pare bëgg ñu dénk la askanu lëmm impossible impossible man maa ko wax moom ñoo xam ne soxlawu ma tudd seen tur parce que tudd seen tur jox leen buzz la te du ma tudd seen tur garantie man awma lu may nëbb ñëpp laa ci yemale nag yal na leen yàlla defal jàmm campagne bi déclenché na wutiwuma ci kenn dara ku dul sénégalais yi sonn di leen déglu fexe xam li seen naqar ma wax ci li ma ci war a wax bu fekkee ne nag politique dafa toll foo xamante ni yàqante der la eh, aywa Macky Sall day gën di am ndam chaque jour day gën di am ndam chaque jour sama live bee passé nee naa leen liggéeyam moo doon nan lay def ba tasaare opposition bi te liggéey boobu maanaam tey daf koo dëggalaat ku nekk berfale sa conférence de presse ay candidat recalé ay ñun waa PDS duñu opposition de fi toll nii ay vingt candidats yi ku nekk mel ni xeex bi ñuy xeex du benn xeex loolu mooy wan sénégalais yi ne ñii ku ci nekk sa problème mu bopp maanaam say avantage yu bopp moo la intéressé say avantage yu bopp parce bu fekkoon ne avantage yu sénégalais yi ak li naqari sénégalais yi moo leen intéressé xoola kenn du ci beru di def lenn te moroom ñëwul parce que dañu ne drapeau national vert jaune rouge Sénégal am déet ñiy beru fale ay les vingt vingt candidats xam nga bi ngeen xamee ne ñu ngi leen di manipuler rek mooy Macky Sall mooy contrôler RTS directeur RTS maire la fii Géejawaay directeur RTS yéen ñi ñëwoon ñëpp bu ngeen xoolee kanamam dafa sawar di reetaan parce que xam na ne xoolal ñoom xam nañu li ñu xam bu yàgg <laughs> xam li ñu xam bu yàgg ngeen dem naan da ngeen di enregistré ji nangam nangam Macky Sall war a def discours da ngeen waroon abandonné bu fekkoon ne yeewu ngeen xoolu leen seen avant ñu déglu li Macky Sall di wax ba pare avant ñuy def ñun ay ay ay ay enregistrement ak leneen mais yeewu leen parce que ku nekk boppam lay xalaat waaw yi jubbantiku leen ñenn ñi ñu ngi sol seen caay yi di pooj te bu ñu génnee di wax ak yéen dangeen naan ñii dañ doon jooy yal na leen yàlla defal jàmm defal ko Sénégal campagne bi déclenché